L'ambiance est au rendez-vous au marché Ocass de Touba. À quelques jours de la fête de Korité, c'est le grand rush dans les marchés. Les vents et viens des personnes restent les choses les plus visibles. Dans les boutiques de tissus, on note de nouvelles tendances. Bon, pour le moment, il y a plusieurs tissus, mais le VIP est en vogue, surtout chez les femmes. Les hommes d'habitude préfèrent les tissus Dubaï. Pour le moment, on s'en plaît Les clients Les clients sont aussi de la partie car ils viennent s'approvisionner avant le jour J. Je suis venu acheter pour mes enfants et ma femme aussi car on doit les rendre heureuses pour la fête. C'est pourquoi je suis venu très tôt pour acheter des tissus en tenant compte des recommandations établies à Touba. Qui parle de tissus pense aux couturiers qui sont actuellement en plein exercice de la fête de Korité. Vraiment, les clients ne sont pas aussi nombreux cette année, mais on se prépare. Nous faisons en sorte de satisfaire la clientèle par des coupes très décentes. Notre travail n'est pas difficile pour le moment car on n'a pas encore commencé à Pour le moment, nous ne prenons plus de commandes pour respect de délai. À quelques jours de la fête de Corité, les marchés regorgent du monde. Grands et petits ont tous le même mot sur la langue. Corité oblige. ngir wàccaayu koyte gi marché yi ñu ngi fees dell bu ci mel ne marché Ocass bu Touba ay fan yu néew des ñu feete li nga xamante ni mooy koyte boo demee ci marché yi nit ñi di dem ak di ñëw ngir waajal lu ni mel ci boutique yi ñu jaayee tissu yi ñu gis fa ay xeetu piis yu bees. waaw koorte gi moom liñ ci mën a wax moom bari na ndax période bii moom événement bi tàmbali na te njaay mi daal nit ñi daal ñi ngi ñëw daal moom wax dëgg am ñi ngi ñëw bu baax baax baa góor moom xam nga bi ci gën a cher daanaka 2000 la ñuy jënd mooy Dubai original bi. waaw yi ci gën a yomb ay téeméer ay 600 ay 700 mais bu dee jigéen ñi moom gis ne original beeg VIP original beeg yooyu yëpp day dem ba day dem ba 10 000 day dem ba ay 15 000. clients yi tamit ñoom bàyyi ñu leen ginnaaw ndax ñoom ñi ngi ñëw di jënd si li nga xamante mooy tissu yi banaa bis bi di egg si. dama ñëw pour xottil sama bopp xottil soxna si xottil xale yi ñoom ñëpp ñoo ma tax a ñëw. Euh, dëkk bi dëgër na metti na mais. njaboot ku ko yor faaw bu événement ñëwee da nga négocier ak ñoom fexe ba ñoom ñëpp kenn ku nekk kontaan. boo nee tissu sa xel dem si li nga xamante ni mooy tailleur yi. ñoom ñi lee nekk ci liggéey bu bari ngir waajal bis bi le fi mu toll nii ñi nga xamante ni ñooy tailleur yi daanaka arrêté nañ li nga xamante ni mooy commande yi ngir mën a pare liggéey bi ñu sumb yëpp. waa ñoo ngi koy préparé ndànk rek ndax xam nga Korité gi moom ren dafa amul xaalis moo tax ndax nit ñi ñëw ñim daan ñëwee ñëwewul noonu waaw tàmbale wu fanaan dañuy guddee rek après ñu wàcc waaw bu ñëwee bëri na fanaan ñu fanaanee ñaw ba semence moo baare nañ tey nag baare nañ tey xam nga julli gi léem ñëw moo tax. ay fan yi néew des ñu waajal li nga xamante ni mooy korité marché yi xumb loolu fees dell ak i nit muy mag di ndaw ñëpp benn mbir la ñuy waxtaanee muy feetu koy tegi